jëfandikoo waaso yu bëri yi ngir ñoŋal développement ci biir réew mi loolee la ñii di acteurs socioculturels yi bëgg a doxal ci biir réew mi ngir mën cee yegg nag ñu tàmbali ko ci promotion lii di consommer local. Euh, dañu jàpp ne senegal su fekkonte ne toog nañu ay bés boo xam ne bi ñu ngi dunde rek li nga xam ne moom lañu fi béyee senegal dana ñoŋal lu war a dem ci juróom benn milliard. loolu alal ju dul génn réew mi la donc alal ju ñuy jëriñ la mais itam su fekkente ne dañ ko def sax ci dana indi ay liggéey. bokk na ci juntuwaay yi nga xam ne war nañ ci mën a sukkandiku muy xeetu togg yi am ci biir réew mi yi nga xam ne war nañ leen a gën a fësal. dans bu delloo nag ci dendu Afrique ci wàllum lekk dafa am boo xam ne dafa delluwaat ci wàllum wér-gu-yaram waaye ñu gis ne tamit léeg lépp daal ay éléments yoo xam ne dañ ko war a jëmmal gën ko valorisé bu ko defee ñi nga xam ñoo di askan wi ñoom ci wàllum lekk ñu lekk lu nga xam ne karta dana am njariñ waaye tamit fexe ba mën a am astut maanaam économiser développement nag mënul am su jàmm amul waaye jàmm ji itam waaso yi mën nañ ci dox ay jéego yu am solo. waa ñi ngi daal di créer ci à partir de 1293 li nga xam ne mooy Serekunda. li nga xam ne mën nañ koo woowee cousinage à plaisanterie waaye tamit war nañ koo gën mën a yeesal ñu mën koo jox ñi nga xam ne ñooy euh, communauté sénégalaise yi loolee tamit delluwaat ci wàllum école yi maanaam ci bérébu jàngukaay yi. ci jamonoy régime bu bees bi nga xam ne jàpp nañ ne régime buy woote woo moom suñu bopp ci lépp acteurs socioculturels yi am njort bu baax ne seen message bile autorité yu bees yi dinañ ko dégg bu baax te danañ ko doxal.